jox fa maanaam mu ngi waxtee ci xarmal waaye ci barab yi ñuy xarmale maanaam képp kuy aji bala nga dugg Màkka dafa am fooy wàcc sangu fa simmi mboolem malaan yoo xam ne dañ koo ñaw defal ko ay tànk ki loxo ci góor dal di lambaayoo benn malaan xoddoo benn malaan dégg dal di door sa yéene commencé la bayka mm. loolu nag barab yañ koy defee mm. moom lay compter mm. dégg nga mu ne ihraamu miqaati harmal ca miqa ya moom lay jàngale bokk na ci ya nga xam ne waajib la waajib yi mu doon jàngale démb nga xam ne moom boo ko bàyyee da nga ciy jàng da koy jàngee deret mooy ihraamu miqaati harmale ca miqa ma miqa mi nag soo ko rombee te fekk xamu ko woon ñu wala ko nga dellu gannaaw kon amul ben problem. waye ya fa armalewul ba romb ko nga armalee fenen rek ray deret euh, tur deret dina la war <clears throat> mune fa sohul fa barab buñu wax sohul fa li tay ba ñeel na wa Medina moy biiru ali boobu mom Medina ñi duggé ci buntu Medina bi ñom ñep sohul leifa la ñi xarmalee wa li saamin ñeel na wa saam wa misra ak misra al juhfa barab buñu wax juhfa saam ak misra nak, misra moy egypte ñoom ñoo yóbbuwaale hmm. euh, Afrique hmm. ñoom ñoo yóbbuwaale Afrique kon waa Afrique ñoom itamit jux fa la ñuy armale hmm. xarnun dégg nga euh, barab bu ñuy wax xarnu li naj din ñeel na waa najat saatu xerqin lil xiraax ñeel na waa xiraax mooy saatu xerqin yalam lam moom itam la yoo xam ne Eh, dégg nga yaman yalam lamu yaman yi daf ko askan ci yaman rek moom mooy bëgg a wax ne mu ne yam waa yaman yalam hmm. waaye nag lii yëpp nag hmm. ci barab yi le aatiha hmm. koo dikkee na ko yu faax ci dëpp laa wax nag mi maanaa yow da nga jógee dégg nga Medina kon kay eh, sooxu lay fa la waaye léegi yow Medina nga dëkk waaye yaa ngi duggee fi xeraax eh, di duggee kon kay saatu xerqi ngay xarmale Afrique nga dëkk ñu ne la fa nga war a xarmale waaye yàlla dafa defoon yaa ngi duggee euh, dégg nga ci yaa ngi duggee yaman buntab yaman bi kon yalam lam la kon nag aatiha wi faax lim ci namm mooy barab yii su fekkee da nga fa duggee la ci namm maanaam kenn ku ne daf la utal bunt su fekkee da nga fa duggee waaye boo duggee woon ci beneen buntu bunt booba fa fa ñu armale rek yow foofa ngay armale xam nga loolu tam jar na xam te jëru du ak raflewu mm, dégg nga minal ma xiiti ci mbooleem yére yi dog ñaw ko loolu dang ci ciy raflewu loolu góor ko mom waaye jigen bokkut ci hmm. dégg nga hmm. jigen mom nam daan solo rek sol am kala yu jot way góor nak mom hmm. mbollem luñ ñaw ko defal ko tank mu am loxo am baat yoy du ko sol mata mun mu min al minal talbiya ay wax la bayka eh, la baykawu yi yep mu ngi bokk ci waajib yi mooy la bayka allahumma la bayka dégg nga bam jeex nga waxal ko ak watu maa yi an jimaari ànd ak sànni jim eh, jamra mm-hmm. tuwa fiya def na matal ko mm-hmm. dégg nga mm-hmm. eh, sànni jamra ba mu mat eh, dégg nga jamra ju nekk nga def nga sànni fa juróom ñaari xeer ci ñetti fan ci ku yàkkamti wut ñaari fan ci ku yàkkamti ak ak raflewu ci malaan yu ñaw ci góor ak boole booleeg la bayka ci kaw ak watu yi yëpp ci waajibaat yi la bokk léegi nag mu ne dafa bëgg a ñëw pour wan la nu ñuy ajee rek hmm. maanaam mu la ko ci nim toppante hmm. wa in turit ndem namm nga hmm. wa in turit ndem bugg nga tartibu hajjika pour toppa dégg nga pour toftale sa haj su fekkee da ngaa bëgg a toftale sa nga xam ne noonu lañ ko santaanee nga toppalante ko def bii teg ci bële def bii teg mooy li ñu kon dégg nga hmm. isma déglul hmm. dégg nga man hmm. dama jël de wala ah waaw ah, mu wa in turid ndem bëgg nga hmm. tartibu hajjaka hmm. toftale sa haj hmm. ismaa deglul dégg nga bayaanu ak leralam ma ta nga ta nga dajale denga nga waaw ga dang ko ci kanam wasaj ma ta nga dajale denga nga a xel min ko tukke fi yow manam deglu bu anda ak xel xam nga ak nopp ni bokk da dégloo xel ak nopp mom mom ci nopp bi la yem waaye yow mi bëgg a toftale sa haj te xam nu ñuy aje te nga isiwaale sa xel nag mooy nga bàyyi sa xel déglul booleel nopp bi ak xel mi ma waxal la nu ñuy xajee in jiita ndéem dikk nga raabixan barab bu wax raabix saf na nga setu waaw waxtasil ta nga sangu waaw na nga sangu-sangu bu andak setu mooy nga raxas waaw ka bi niki cangaay lu war rek faratam waye tasil tamu mu jokko bi ci xaram ga hmm. manam boy sangu ba par rek fay dal di joko ak la bayka ga continue hmm. bo ñewé rabiq hmm. barab bobu na nga sangu sangaayal farata ka waajibin sangaay lu war waye tasil nga joko ci xaram ga ñiko nin ha Ah, ngok, gobang alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah taalimul mutaalim démb daal lim doon jàngale mooy jikko ah, ju baax ak ju bon lépp xam ko baax na ndax loo xamut doo ko mën wa amal hifsu dal mokal maa yaqama loo xam ne dana xew fi baadi ahaa yi ci lenn ci e, mbir yi dégg nga fardun farata ala sabilil kifaayati ci e, yoonu fardu kifaaya isaa xaama ndéem taxawee na bii ci moom albaadu ñenn ña fil baladi ci dëkk saqatar mu wàcc mu rot an ba anil baaxi na ci ñi des fa in lam yëkkun ndéem taxaweewut fi baladi ci dëkk ba fay na yëkkun dem nekkut fi baldati ci dëkk ba man koo xam ne mu bii dana taxawee loola mm-hmm. istarakoo ñi bokkaate jëmmi aan ñoom ñëpp fi maasimi ci bàkkaar ba mm-hmm. maanaam dafa am ci xam yoo xam ne mm-hmm. ci yenn ci mbir yi nga xam ne dana xew moom dafa nekk ci li ñu tuddee fardu kifaaya dafa am fardul ayni mooy lu la kenn ta defal borom laax dër yi jàngaloon na la ko ci njëlbeen bi julli moom xam nga kenn mënul la defal or kenn mënul la defal sangu farata kenn mënul la koy defal dégg yooyu far farata la ci jëmm hmm. waaye fardul kifaaya mooy la mel ni nit ku faatu hmm. la ko commencé ci sang ba hmm. farata la waaye fardu kifaaya la sang ko jullee ko dem rob ko yëpp fardu kifaaya la maanaam bu ko kenn bu fekkee nit dafa faatu ci dëkk bi su amee ñenn ñu génn dem def ko rek na ñëpp waaye mu ne bu ko ñëpp bañee def nag ñoom ñoom ñu am bàkkaar moo tax mu ne yenn ci farata yi nga xam ne fardu kifaaya la dafay xew ci dëkk bi su ko ñenn ñi defee mu wàcc ñenn ñi su ko ñenn su ko ñëpp àndee bañ a def nag istarakoo ñi bokkaate a ñoom ñëpp fi maasami ci bàkkaar ba mm-hmm. dégg nga mm-hmm. kon nag fa yajibu dana mu war mm-hmm. a imaam yi ci élimaan an yaamuru mu digal leen bisaalika ci ñi jéem a ñi déem a def loolu bu dara xewee ci dëkk bi loo xam ne fardu kifaaya la élimaan na jéem a taxaw def ko wala mu oo nit ñi ñi am ñu ko taxawee ndax suñ ko deful rek su boobaa danañ mujj dal di am bàkkaar bismillah exil dégg mu ne ah, bu boobaa élimaan na na leen ah, na taxawu dëkk ba ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu taxawee loola ba ñu bañ am bàkkaar ñoom ñëpp masalan tey nit ki génn àdduna ci dëkk bi te ñoom ñëpp ñu toog di ko xool rek ah ñoom ñëppay am bàkkaar waaye bura dana mu jàng ahlu baldi bu eh, ahla baldati waa dëkk ba xale yi ci moom anam wayeej buru loo bind wayeej buru mu ngoog mooy danañ ko taxawee rek ahla ahla baldati waa xale yi ci taxawaay booba ma na digal wa dëkk ba ñu taxawe ko waxaat xiila am nañu wax ne inna inna naka xam-xam mm. maa yaqamoo loo xam ne dara mu xew xalaat mm. naf si ci nit ki mm. fi jëmmee awaali ci mboolem mbir yi wa moom bi man si la ti taxaame mu ngi mel ni ki lekk xiif lekk rek ñu ne xam bi nga xam ne dafa aju ci jëmmi nit ki mu ngi mel ni xiif lekk rek bi nga xam ne moom du duur farata mu ngi mel ni xiif lekk rek waaw comme ñam rek laa bu da mënta ñàkk nag li kulli waay dañ ci kenn ci yéen minu ci moom pour mu lekk boo boo lekk lu lay dal da faatu foog nga lekk mu nga kon nag xam-xam itam mun am na ci yoo xam ne noonu la mel foog nga dem uti ko rek soo ko utul rek da nga am problème dafa taxawee taxawaay comme lekk waleel mu xam-xam maa boo xam ne yàqamu dana mu taxawee euh, dégg nga dana mu dana mu xew fi ba di aha yi ni ci lenn mbiri bi man silati dawaa yi mu ngi mel ni ki euh, faju yuxtaaji dana mu xaajoo illay jëm ci moom inal mar waxtu feeb waxtu feebar inal mar di waxtu feebar faqat dong am na ci xam-xam yoo xam ne dafa taxawee comme ku feebar rek Euh, ku feebar luñ soxla ci moom dem dem faju ci waaye xanaa du toog rek di xoole mu nga am na xam yoo xam ne bu la dikkalee moom tamit dafay laaj nga dem nag jéem koo faj mooy jëm koo dem uti waaw jéem koo xam ndax dafay saafara sa sa feebar loolu lu mel ni ki euh, roxo gi ak xol bi mm, bakkan bi yëpp seen feebar yi mooy mm. réere gi ñu réere yàlla war a dund yàlla loolu da nga a dem uti sëriñ bu la ci dimbale wa ilmu nujumi mm. xam-xamu ilmu nujum mom mm. bi manzilatil mardi mu ngi melni ki xam lu febar rek mm. fa ta'allamu xam lu ko xaraamun dafa haram. li anno nak mom yeddur dana mu lor wala yen fo du jeri xam-xamu ilmu nujum mu ngi melni dem di xam lu ji febar waxu xam lu ji febar moy eh, dugg ci lu lay isil febar rek waaw lo xamne ne ci duggee febar mo la cay fekk loolu dafa haram. deug nga febar mo la cay fekk dafa xaraam lu tax mu parce que fay lor te du jeri loolu mooy xam-xamu nu mu nu joom yàlla mun nu joom xam ci biddiw penku bi euh, doy na xam ci penku bi boo boo gëlëmee nga mën cee gindeeku doy na waaye bo ci bëgg am yenn xam-xam yi nga xam ne da ngay xam xëy bu dugg ci xëy bu yàlla gi dafay mujj dal di araam ndax feebar rek la lay isil dafay tax nga dugg ci jaamu xëram ak yu kenn xamul moo tax mu ne fa taalu moo xam lu ko xaraamun dafa xaraam li àndoon ndaka moom yeddu day lor wala yéen fa du jëriñ kon xar bu daw wal xar bu daw men xaddaa illaahi tukkee ci dogalab yàlla taalaa mu wa qadari yi ak xatteem dégg nga min xaddaa illaahi ci xatteem yàlla wa qadari ak dogalam xayru mumkinin duul lu mën a jàppandi maanaam dugg ci xelmul xaybu xam-xam-xamu nu joom dégg nga di di jéem a daw dogali yàlla yi loolu de da ngaa sonal sa bopp rek waaye du mën a nekk waaw loolu du mën a nekk daal kenn du mën a daw dogali yàlla moo tax xam-xam boobu day lor waaye du jëriñ boobu dana baax